di téere bu am solo boo xam ne nii Serigne Souhaïbou Mbacké ibn Khadim Rassoul ma ko bind juróom-benneelu guddi ci weeru koor képp ku ci julli ñaari rakka rakka bu nekk faatiha benn yoon lixlaas fukki yoon ak ñaar mel ne ni ku julli ca maqaama ibrahima junney rakka julli ca jàkkaay màkka junney rakka saraxe junney dërëm lele junney ñu xiif te bu ñaanee des na ko nungu mel na itam ku jox ndogu xeetu yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam wépp bu faatoo it ñu boole ko ci ñi dee ci jihaad te dees na ko musal ci mititu dee te bàmmeelamit dees na ko defal ci déri àjjana ya te buy dekk dina dekk waale leer gu mel ni jant bi xeeñ gëtt ya gën a neex te dina tàbbi àjjana te deesu ko xisaab te ca mbooloom yonent ya lay bokk bu ëllëgee kon loolu mooy juróom-benneelu guddi gi ñaari rakka la rakka bu nekk faatiha benn yoon lixlaas fukki yoon ak ñaar